mën nañu commencé fësal seen kontante ndaxte lu toll deux cent tonnes ci soble importe disponible na ci marché bu Caaroy prix saaku soble bi wàññeeku na. fi mu ne nag seeroon na mais nag mi ngi wàññeeku bu baax parce que saak bu demee ba doon jar vingt cinq mille fi ne maanaam en ñu ngi koy jaay dix neuf mille bon ñu koy euh, demi grossiste bi ñu ngi koy jaay vingt mille francs ak dix neuf mille cinq kon mi ngi wàññeeku ci yaakaar nag di gën a wàññeeku parce que fi mu ne soble sept mille tonnes am na ci port bi mi ngi génn bu baax gis nga waaye gis nga soble bi fi nekk fi ne. loolu tamit la ñu nemmeeku ci kilo soble jamono ji ñu ngi koy jaay neuf cent francs détaillant bi di ko firndeel. ci d'habitude daal li ñu xamoon moom kilo soble moom bu mili mili mi moom seize cent quatre cent mooy doon prix normal bi nga xam ne moom askan wi dañ ci mën a duñ ci am benn jafe-jafe. mais nag am nañ yaakaar ne balaa ñoo def fii ak magal dina xaw a saase ndax période bii ñu toll mu 900 lu doon demoon ba 1200 mu ñëwee ba 900 kon ñu ngi am yaakaar mu ngi wàññeeku. ba tey ménage yi jàpp nañ ne yëf yi dafa seer. Euh, dund bi seer na soble bi seer na lépp seer dara amul yow borom 1000 francs mënatul di togg léegi ku am 2000 mënatoo togg dem marché. lii di soble local dafa nekk en rupture maanaam amul fii ci marché. bu yi